asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi gannaaw nuyoo bi noo ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yenente ba sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu boole nu saxal ci siraatal mustaqim di ko ñaan mu defal nu jàmm fi dunya wa fil axira defal ko mboolem jullit bokk yi ci waxtaan wii ngeen di waxtaan mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak fii nu toll nga xam ne am na ñu koy jéem a tuutal ak am ñu jóg di ca wax ay kàddu ngir défendre yonent bi sallallahu alayhi wa li nu war a xam ñun ñépp mooy ak lu waay mën a wax ci moom wala def ko ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuutiwul ndax suñu borom tabaraka wa taala da ko màggal lool tuutiwul mukk tuutiwul ci sunum xel tuutiwul ci sunuy bët tuutiwul ci sunu xol yonent bi moo nu gën a lépp moo nu gën a lépp yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag man li ma ci bëggoon a fàttali mooy Eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mooy kan ci ñun ak ñun ñii ñun ñooy ñan ci moom moom naka lañu daan taxawoo ak ñun tey naka lañ koy taxawoo moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bu màgg boobi yonent bu baax boobi yàlla sunu borom tabaaraka wa taala moonu njëkk a xamal kan mooy kooku ci ñun kan mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ci ñun yàlla wax na ci alquraan ni laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur rahim yàlla nee na naa leen ab yonent muy muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci yéen indil naa leen ab yonent di muhammad mii mu bokk ci yéen nag waaye moom mii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam day am lu ko metti lool fekkee am na lu leen dal yéen day am lu ko metti lool lool su fekkee ñun ñii di xeetam am na dara lu ñu wokk wala lu ñu xuri lu ñu dal ci mettit wala ci naqar rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam day am lu ko metti lool waaye nag yonent boobu day xariisun aleykum mu nekk ku xër lool ci yéen maanaam ku leen bëggal lu baax la ku leen bëggal aw yiw la ku bëgg yàlla bëgg leen la ku bëgg yàlla jéggal leen la ku bëgg yàlla yëram leen la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundam yépp da ko paase ngir yàlla bëgg jullit ñi ngir yàlla yërëm leen yàlla teg ci mu ni bil muminina raufur rahim yonent bii day da leen bëgg lool yéen jullit ñi da leen yërëm lool yéen jullit ñi kooku mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ñun nii la meloon ci ñun nii lañu ñu bëggee woon lu ñu wokk wala lu ñu xuri rek moom day am lu ko metti lool kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa danaa fàttali nag lenn lenn lenn ci loo xam ni da doon def ngir ñun da doon def ngir ñun léegi nag kenn ku ci nekk na xool looy def ngir moom bokk na ci lim daan def ngir ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mësuta julli te ñaanalul xeet wi mbokkum jullit yow moomu di ma déglu te di jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësuta julli wenn waxtu lu dul ni daf laa ñaanal yow yow mi may déglu nga dib jullit lu tax ma wax ko benn bis sunu yaay Aïcha yal na ko yàlla gërëm moo wax yaay Aïcha mu ni dama gis yaay Aïcha mu ni dafa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés nee na yonent bi daal firi lool maanaam mu xool xar kanam gi mu firi lool nuroo ko kontaan lool yaay Aïcha ni ko yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ma nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam daa wax ni allahumma agfir li aïchata maa taqaddama min dambiha wa ma taaxar ma sarrat wa maa aclanat mu nu yonent bi daal di wax ni yàlla yow sun boroom yàlla na nga jéggal Aïcha lépp lum jiital ci ay bakkaaram ak lum defagul yàlla na ko ko baal di wax ni yàlla na nga ko jéggal lim def ci bàkkaar te nëbb ko ak lim feeñal lépp yaay Aïcha nee na bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee yaa Aïcha mu ni mu daal di reetaan ba daanoo ba daanu ci kawam maanaam yaa Aïcha ree na ba daanu ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa ndax kontaan ndax kontaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonent bi wax ko de ni ko ndax li ma ñaanal daf laa neex yaay Aïcha ni ko waaw waaw awma lu ma gën a neex sa ñaan gi nga ma ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko wallahi innaha la duaai li ummati fi kulli solaatin mu ni ko maa ngi waat ci sama borom yonente bay wax de maa ngi waat ci sama borom ni ko lii ma la ñaanal moom laay ñaanal sama xeet wi julli gu ma julli gu ne rek moom laay ñaanal sama xeet wi allahu akbar bokkum jullit yonente bi alayhi salaatu salaam nii la meloon ci ñun julli gu mën a julli rek lii la ñuy ñaanal muy yow mi may déglu ak fu jullit mën a nekk ci adduna ndax boo bokkee ci aw xeetam rek ci ñaan gi nga bokk julli gu mas julli nag ba ca topp mooy nu bàyyi xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni yàlla sunu boroom dafa jagleel bépp yonent maanaam yonent bu yàlla yónni rek jox na la ñaan goo xam ni mustajaaba la maanaam ñaanu xaas ci ci ngir ñu mën ko comprendre jox na yonent bu nekk ñaan goo xam ni su ko ñaanee rek mu am mooy ñaanu xaas nee na yonent bu ci nekk nag dafa jël ak ñaanam ñaan ko mu jeex moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag mu ni man de ñaan gi ma sun may muy ñaanu xaas gi dama koy dencal sama xeet wi ba ëllëg yowmal qiyaam te ñaan gi nag dana dal dana dal insha allah képp ku faatu ci sama xeet wi nga xam ne du bokkaale ak yàlla képp ku faatu ci sama xeet wi te bokkaale woog suñ borom sama ñaan gi dana la dal allahu akbar bokkum jullit benn ñaan goo xam ne suñ borom nee na la ñaan gi moom foo ko ñaan mu nangu ñi ko suñ borom joxoon ñépp ñu ñaan ko ñu jëfandikoo ñaan gi yonent bii di muhammad alayhi salaatu wassalaam ni man sama bos dama koy denc ba yowmal qiyaam ngir sama xeet wi laa koy jox allahu akbar kii mooy muhammad ci xeetam kii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xeetam moo tax lu ko waay mën a wax ci lu ñaaw lu ko waay mën a def ci lu ñaaw ñun dañ koy gën di bëgg dañuy gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moo nu gënal sunuy ndey gënal nu sunuy baay te loolu mooy ak gëm yàlla dëgg ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax yonent bee nu gënal ku yàlla bind yonent bee nu gënal ku yàlla bind kon lu waay mën a wax ci moom dangay sonn rek lu waay mën a bind ci moom da ngay sonn waaye yonent bee nu gënal lépp ndax daf ñoo bëggoon lool di ko wax xoolal ëllëg yowmal qiyaam mbokkum jullit xoolal ëllëg yowmal qiyaamati bés bu ko gën a metti du am bés bu tar lool bés boo xam ne suñ borom day wàcce jant bi mu tiim boppi nit ñi ñépp seen yuur yi di bax mu tàng lool metti lool yàlla mu ñu li yow ma minhum yawma idin sha'nun yughni bés la boo xam ne kenn ku nekk sa bopp ngay tal kenn du tal kenn ku dul kenn ku ci nekk sa bopp ngay tal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ñépp dañuy def yaramu neen duñ sol mbubu duñ sol tubéy yaa Aïcha ni ko ah bés boobu dana garaaw mu ni ko dana metti mettiwaay boo xam ne kenn du tal kenn kenn du xam sax sol nga mbubam soloo ko bés bu metti boobu yonent boo dem ci moom mun la nafsi nafsi su boobaa ñëpp kenn ku nekk danaan sama bopp sama bopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci taxawaay boobu ci mettit boobu ci tàngoor boobu day jóg taxaw ni ko sun borom dimbaleel sama xeet wi daal di su jóot ci kanamu sun borom su jóot ci kanamu sun borom ne ko sun borom dimbali ma sama xeet waa ngoog noo leen di def yërëm leen jéggal leen moom rek a koy def nag ci jamono bi nga xam ne ñépp a ngi naan sama bopp nafsi nafsi nafsi moom mu taxaw ni ummati ummati ummati sama xeet wi rek allahu akbar waaw kii kii ndax ñun danañ ko jëndee keneen ndax ñun kii daañ ko jëndee keneen ndax keneen mën naa wax lu tax ñu ñu xeeb ko ndax kenn mën naa def lu tax ñu xeeb ko wala ñu wàccee ko fen ko teg déedéet day gën a ko rek ci ci sunu kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sunu xol dara fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sunu bët gisuñu dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sunuy nopp dégguñu dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sunu yaram yëguñ dara yonent bi rek lañu yëg ñun yonent bi rek lañu yëg moom lañu bëgg ci sunu xol yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam dafa yërëmoon xeet wi lool mbokkub jullit déglul yonent bi ku la bëgg la ku la yërëm la dafa am benn bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di jàng alquran ba agsi ci laay bi yàlla naan rabbi innahunna adlalna kathiran min annaas fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asaani fa innaka gafurun rahim muy jàng beneen bés in tuadibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta alghafur fa innaka anta alazizu alhakim bi mu koy jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati loxoom di jooy di jooy de déglul Muhammad booy jooy yonent bi ki gaa yi bëgg a tuutal di jooy di wax ni allahumma ummati allahumma ummati allahumma ummati yow sunu borom sama xeet wi yow sunu borom sama xeet wi yow sunu borom sama xeet wi di jooy yàlla sunu borom daal di wax jibril ni ko demal ma ci Muhammad ma ni ko sa boroom mu ngi lay laaj looy jooy lu xew jibril ñëw ci yonent bi wax ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko jibril man di leen rekk laa bëgg mooy yàlla jëggal sama xeet wi yàlla yërëm leen yàlla bëgg leen loolu rekk laa bëgg jibril dem wax ko sunu borom sunu borom ni ko waxal yonent bi ni ko lim wax danaa ko ko defal inna sa nurdika fi ummatik wala nasuuka ne ko lim bëgg danaa ko ko defal danaa jiggal xeet wi danaa leen bëgg danaa leen yërëm te lii mooy jooy duma ko ci topp dara ndax xam naa ne bëgg xeet wi rek a tax mu di ko def allahu akbar bi mu ko waxee rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg lool xaddis bi muslim moo ko solo yonent bi bëgg lool ndeysaan mbokki jullit yi kii mooy Muhammad alayhi salaatu wassalaam dafa xalaat xeetam wi yépp ba xalaat ñu ñàkk ñi dafa am benn bés muy rendi tabaski muy rendi tabaski mu jël ñaari xar yu mag a mag a mag mag rendi benn bi ci kanamu waa ñëpp ci kanamu nit ñi ñëpp di gis yonent bi daal di wax ni allahumma hada an ummati jamian mimman shahida laka bi tawxid wa shahida lii bil balaam mu ni ko sun borom xar mii maa ngi koy rendi ngir sama xeet wi yépp nag képp ku la seedal ni yow borom bi nga rek képp ku nangu ni man yonent bi laa maa ngi koy rendal xar mii ba àddunay tukki kon képp ku ñàkk di faqiir tabaski jot amuloo tabaski jàppal ni muhammad alayhi salaatu wasalaam tabaskil na la allahu akbar kon yow mi amul tabaski bul jàq bul tiit wàcc na la ndax muhammad alayhi salaatu salaam defal na la ko lépp lu ko waral ci bëgg la rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam mësta bëgg jullit ñu am coono mësta bëgg ñu am jafe-jafe mësta bëgg ñu am gàllankoor benn bis dafa wax ni man de soo fekkoon bëggumaa teg xeet sama sama xeet bëggumaa teg coono sama xeet wii kon duma toog mukk di yebal quartier ñuy dem di xeexi ji xare bu am danaa ko jiiteel sama bopp ñu topp sama ginnaaw may diriger ñu may rey may dundaat ñu di ma rey may dundaat ñu ma rey may dundaat ngir lan ngir défendre sama xeet wi allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su doon ba ñu la teg coono xeetam wi xee xare bu am moo koy dirigeel boppam nekk ca kanam ñu di ko rey ñu di ko rey muy dund ñu di ko rey muy dund ñu di ko rey lépp ngir lan ngir défendre xeetam wi sallallahu alayhi wa sallam kii mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni moom la gaa ñi bëgg a tuutal ci sunu kanam du tuut mukk du tuut de dafa am benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni su ma bañul woon a teg coono sama xeet wi kon danaa leen digal ñuy socc julli gu ne julli gu nekk rek danañ socc mu doon farata ci ñoom gun sañu tabañ te su ko waxoon ñu def ko mbokkam jullit su ko waxoon ñu def ko de waaye nee na bëggul coono di am ci ñun mu wàccee ko mu wàcceel ñu ko allahu akbar kii mënta tuuti ci sunu dafa am benn bés yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jooy jooy yu méttee métti mbokkum jullit dëkk loolu Muhammad dafa jooy ngir yow benn bés muy jooy jooy yu méttee méttee métti saxaaba yi laaj ko yow Muhammad ana looy jooy mu ni leen wadittu anni laqiitu ixwaani man de dama bëgg lool dajeeg sama mbokk yi dama namm lool sama mbokk yi dama bëgg gis lool sama mbokk yi saxaaba yi ne ko ah ñoo ngi nii ñoo ngi nii ñoo ngi nii yow muhammad ñoo ngi nii ndax duñ say mbokk yonent bi alayhi salaatu salaam ni leen antum asxaabi walakin ixwaani alladina amanu bi walam yaraw nii mu ni leen yéen samay saxaaba ngeen waaye samay mbokki bopp mooy ñi nga xam ni dana ñu ma gëm ëllëg te gisuñu ma allahu akbar kon yow yaa tax muhammad alayhi salaatu wasalaam di jooy jooy yu metti ngir bëgg laa gis ngir namm la ngir bëgg la lool kooku mooy alayhi salaatu wasalaam fu mu toog ummati ummati lay wax sama xeet wi rekk lay wax sama xeet wi rekk lay wax ba sun borom seedeel ko loolu ne azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufu rahim bëgg leen lool yërëm leen lool kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënta wax lu tax mu tuuti ci sunuy bët kenn mënta def lu tax mu tuuti ci sunuy nopp wala ci sunuy xol yonent boobu yi nag comme lii lépp moo ko def ngir ñun bëgg ñu lool yërëm ñu lool fonk ñu lool waaye ndax jaadu na ñun nu bàyyi fi ay ndigalam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wallaahi jaaduwut xam nga lan mooy lan lañ ko war a delloo ñun mooy déggal ko ci lépp topp ko ci lépp gis nga défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkut jël yat di taal fitna di coow di xeex di reyante loolu du du du défendre yonent bi du loolu dong waaye bokk na ci li wane ni bëgg nañu rasulullah mooy nu topp ko ci lépp lum ñu wax ci colin ci waxin ci jëf ci dem ci dikk ci toog ci taxaw ci lépp lu am lu ne rek ñu wane fa mbëggeelu ko rasulullah ci di jëfe ay ndigalam loolu rek lañ mën a def nag ngir wan ni ni ko ya ñoo la gën a bëgg loolu rek lañu mën a def ngir wan ne ko ñoo la gën a bëgg yow Muhammad ñoo la gën a bëgg yow nit ki nag su fekkee dafa bëgg nit da koy roy ci léppam xoolal footballkat yi bu ñu bëggee mel ne joueur sàngam dañuy jéem a def li muy def même mbër yi boo leen bëggee sax da ngay jéem a def li ñuy def di créer ay bàkkam di jéem a roy ay bàkkam ak i feccam ak i istilam footballeur yi kazaalika musiciens yi ñi leen bëgg dañuy jéem a roy di leen def loolu musicien boo fa gis da ngay dégg ñu naan diw 2 mbër moo fa gis am na diw 2 diw 3 diw junior joueur boo fa gis am na diw 2 diw junior ana Mouhamed 2 ana Mouhamed junior gis nga buñ ko bëggee am dañuy solo ni muy soloo di wax ni muy waxee di jëf li muy jëfee di ko gën di bëgg nag di ko gën di bëgg mbokkum jullit faw amagoo neex ci bëgg bi nga bëgg rasulullah bëgg goo ko nañ wax lu leen neex nañ def lu leen neex ndax yaakaar nañ ne am nañ doole te doole man dëgg nag fii nu toll tey waaye loolu ñuy wax ak di ko def wallahi alazim mënta dindi lu toll nekk fepp suuf ci bëgg bi biñ bëgg rasulullah da koy gën di yokk kay dañuy gën di bëgg rasulullah dañ koy gën di bëgg di ko gën di roy di ko gën di topp nag lu leen neex wax leen lu leen neex def leen waaye dañuy bëgg rasulullah di ko gën di fonk di ko gën di roy di ko gën di te gis nga li ñuy def day tax jullit ñi gën a bari rek day tax jullit ñi gën a bari rek wallahi day tax jullit ñi gën a bari rek mbokkum jullit yal na nu sunu borom tabaaraka wa taala fayal yonente bi alayhi salaatu wasalaam yal na ko yàlla yal na yàlla julli ci moom sëlmal ci moom yal na nu yàlla def ay soppeem nu nekk ay soppe yonent bi sopp yu dëggu nag ci roy ko ak ci di ko déggal di ko topp yàlla na nu sunu borom tabaraka wa taala booleeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam ëllëg yàlla na yàlla dogal mu jàpp ci sunuy loxo ba tabal ñu bil arjanna du nu ko bàyyi mukk nag dañ koy gën di bëgg rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.